salaamaaleykum mbokk yi man la Kayz Fof euh, dafa message boo xamante ni dama bëggoon sénégalais yëpp jot ko message bu gàtt la on na moins de vingt quatre heures pour agir on na moins de vingt quatre heures pour que ñu woon Macky Sall ni dëkk bi bàyyoo moomu ko ndeyam moomu ko dëkk bi sénégalais ko moom te démocratie bi dañoo xeex pendant des années pour ñu mun ko am duñ ko bàyyi mu def si lu ko neex Macky Sall li mu bëgg mooy képp ku wax ak moom ci réseaux sociaux yi mu ne la terroriste nga mu tej la sa dund bi yépp nga passé ko prison képp koo xamante ni génn nga manifester manifestation boobu mu yóndi la ay nervi nervi yi yàq fa taal fa pono ñu tej ñépp ñu organiser manifestation bi tej leen toute leur vie ñu tej leen seen aduna bi lépp ñu ne leen ay terroriste lañ Macky Sall dafa bëgg ñi nekk ci réseaux sociaux di publier ay affaires boss bu ñu leen taxé terroriste ñu duggal leen ñom ñepp prison tëj leen toute leur toute toute leur vie ñun lool duñ ko seetaan Macky Sall momul Sénégal député yu am sañ-sañ bobu def ko nañ ko reccu toute leur vie. suba loi bobu bu mu jall te warul jall na sénégalais yépp génn ci mbedd mi deuxième vague bi de Macky Sall moko déclarer Macky Sall mo lancé jour bi jour bi suba la té ci goudi gi ni la wara commencer on a moins de vingt quatre heures pour agir bu dé Sénégal ñun ñoko mom Macky Sall moo war a dellu ginnaaw képp ku mën a wax ak Macky Sall waxal ak moom nga ne ko il est en train de risquer gros ci décision bi nga xamante ni mu ngi koy jël Sénégal ndayoom moom ko bàyyoom moom ko te dinañ dinañ xeex ak moom lépp lu mu fi indi comme loi dinañ ko assumer nee na ay terroriste lañ ay djihadiste lañ nañ ko jaay suñu bakkan nañ ko woon ni ñun jihaat bu ñuy jihaat Sénégal lañ koy jihaadal pour liberté wu Sénégal ne ko ñëpp partager na ko ñëpp jot jërëjëf.